askan wi te ñi ci gën a not la ñuy wax la ñuy xeex la ci askan wi am bëriwul xaw ma nag turé turé bi ñoom seen mbir num demee bëggoon nañ xamit gannaaw buñ célébré journée mondial de Paris résultat yi nu mu toll ak thème ren bii nga xam ne danañ ko mane defe naa ne cinquante cinquante sur deux mille deux mille trente deux defe euh, luñ ci wund ak luñ ci toll tey euh, soxna Fatou Touré wolof na ne tungu ne tungu ne du teew ñu natt ci takk ndeer yéen yéen a nekk ci mbootaay gi ñuy tuddee réseau Siggil Jigéen yàgg nañ leen xam ci combat yu mag ngeen di ko mën ci réew mi di ci liggéey pour wàcceef ak yelleefu jigéen ñu bëggoon xam biir bi ngeen nekk yëpp di xeex li ñuy tuddee parité buñ la laajoon fu ngeen ci toll tey ak yan résultat ngeen ci am looy wax. sant ci bi nga defal réseau Siggil Jigéen sama présidente Adjaratou Sofietou Diop

ñuy wax ne ñun suñu mission mooy loolu xeex loo xam ne dañuy am ay rapport de rapport de genre égalitaire ci biir Sénégal ak biir Afrique suñu mission principale nekk yëkkati jigéen yëkkati jigéen nag en terme de droit maanaam ci àqam ak ay yelleefam loolu dafa nekk loo xam ne foog ñu wax ko di wax ne régulier jigéen jigéen tam xam nañ ko ci ay combat code de la famille xam nañ ko ci yeneen combat mais dernièrement combat bi nga xam ne bokk na ci te gañe ko mooy protocole additionnel pour l'égalité homme et femme dans l'espace espace Manam ci biir CEDEAO dañ fa yëkkati won li nga xamné ay loi la yo xamné dafa matéwul ci jigen ñu andando xex ci benn coalition ba nga xamné ne réseau Siggil Jigéen ko ba nga xamné lolu ñëwna xamnañ tamit légui ci jamono ñu tollu ne fokk ñu def délégation des tâches sur le plan médical réseau Siggil Jigéen taxaw na ci xex na ci ay combat yo xamné tay Sénégal amna na li ñuy li ñuy tuddee eh, démédicalisation wala délégation des tâches ba nga xamné tay jigen amna ci lu muy jot lo xam dina moytu dee yo xam c'est des décès évitables dañuy wax ne ñun tam dañuy plaidoyer ci moytu nef pour jigen ñi ëmb yi nga xam dina leen yóbbu ndax ëmb yu jege ñu ñu mëna moytu décès yoy muy les décès évitables euh, depuis nak ñent at réseau Siggil jigen dafa dugg ci askan bi dem fekk ñi nga xam ñoy ñooy communes yi di maire yi parce que nak santé dafa nek une compétence partagée te xam nañ ne planning familial bi mën na mën mën mën na delloo gannaaw ndeete yaay ak doom waaye liñ ci def ci alal ci Sénégal bariwul naam nag ma madame le ministre ren def na ci 300 millions ci jënd rek médicament may wax ne ñu ngi ciy def ay jéego yu rëy rëy rëy waaye nag am na lu des li des réseau gi Jigéen amul fu mu dul dugg ci biir Sénégal jàkkaarlook meeru Sénégal yi fii ba Ross Béthio fii ba fu nekk pour meeru Sénégal itam def ci seen doole te tey jii may wax ak yow def nañ ci ay millions millions millions yoo xam ne day nar a dem ci dimbale jigéen ñi ñu moytu neef delloo gannaaw ndeete yaay ak ndeete ndeete eh, jigéen donc may wax rek ne parité rek nekk lu dul droit yi di yem kon taxaw boobu ñu taxaw nekk na taxaw boo xam ne mi ngi dem ci yemale droit góor ak jigéen ndax xam nga ne de yaay ak doom chaque jour ci Sénégal juróomi jigéen dinañ faatu ci li nga xam ne mooy ëmb ak wasin te eh, eh, yàlla tegul góor ëmb ak wasin ça veut dire foofu égalité amu fa parité amu fa sax foofu nag donc ñu ngi fa taxaw ñu ngi taxaw tamit ci lépp loo xam ne day yokk économie jigéen pour jigéen gën a mën a dem kanam. may wax ne dinañu dugg léegi ci cinquante cinquante buñ ci duggee li ñu gën a comprendre parité parce que Sénégal dañu naan parité parité nekkul lu dul droit yi dem ba yem nekk cinquante fu jigéen ñi nekk cinquante fu góor ñi loolu au niveau mondial moom rek la ñu tegaat kon may wax ne rek boobu ba léegi réseau Siggil Jigéen ak jigéen ñi nekk ci Sénégal yëpp ci association kuréel yi. ñi ngi ak goor ñi sax yenn goor ñi ngi àndandoo di xex pour goor ak jigen ñam ci yelef tay lima lay dugalal ci ouverture bi moy assemblée nationale laay jël musul passer 20% jigen musul passer 20% jigen bu ñu dugalee la loi sur la parité tay ñu ngi ci plus de 42% 42, et quelques pour cent jigéen muy 64 jigen ñu fa nek contre 86 goor kon bu ñuy wax ne rek parité bi duguna ñi ngi dox ak moom ndànk-ndànk

kon fi ne mag la muy demal boppam li mm. wolof di magam la dem ku ko mm. gisul mu gis boppam ko ànd ak moom mu dem ku àndut ak moom mu dem tey te eh, feeñal nga ne eh, seen combat yéen a ngi ko jëmee ci luy yëkkati xàq jigéen mm-hmm. maanaam jigéen fuñ ko war a néewalee kàttan mm-hmm. foo xamee ne gis nañ ne war na fa am lu mu jot mm-hmm. te joguñ ko ko jombut mu dellu ci ñàkk xam jombut mu dellu ci ña ko def tey ko ngeen taxaw pour def intervention ñu jox ko ak jooje nga wane ci ne depuis euh, CEDEAO doxal luñ mel yéen a ngi ci combat boobu ba tey. Mhm. wane nga ne combat bi dugg na it ci affaire planning familial ndax ëmb ak yimbi góor du ko def jigéen a koy def kon jigéen ñi ñoo gën a xam la nekk foofa. ngeen boole ci planning boobu euh, di ci contact ministère bi wane ne trois cent millions def na ko ci. Mhm. donte ne doyut bu doolee ngeen jël. Euh, nga feeñal ba tey ne ci wàllu parité bi doonul niñ koy déggee nii rek ndax dañoo dañoo na matale place yëpp. bo démé ci assemblée eh, ni mu demee actuellement musu ko démé ndax fi na defe naa ne même yëggagu leen fa ngeen jëm mais am ngeen lo xam man ngeen ko laam daj ko ndax dem ngeen ci 42 pour cent donte ne bu ngeen bëgg yegg ci 50 ci 50 xëy dara ñëw ci luñu mel. waaw mhm. gannaaw bu ñu bokkee déglu Touré Touré bi mu wax li mu wax ci réseau civil jigéen ci xex bi nga xam ne ñu ngi koy ci fu ñu néewalee doole jigéen. moo xam ci place publique yi moo xam moo xam eh, bu dugg ci planning familial dugg génn ci affaire u parité bi yow en tant que observateur di journaliste di liggéey ci eh, réseau boo xam ne bu rëy la buy liggéey ci wàllu lislaam eh, yow noo gisee noonu waaw bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi lay nuyu oustaz bi tey di nuyu soxna Touré sa bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo teewe si waxtaan wi ak ñiy liggéey ci DTV yëpp ak téléspectateurs yi hmm. di am mbégte aussi waxtaane lu mel ni rawartina euh, ak ñoo nga xam ne dañ ci am expérience di ci liggéey euh, li ma bëgg njëkk rek euh, ubbee waxtaan wi mooy di leen ndokkeel ci seen wala ci suñu journée bi lay wax parce que loolu dinaa ko feeñal ci biir waxtaan wi lu ma lu ma yitteel la hmm. mooy question orientation wu combat lu li ñuy tuddee combat jigéen dañ ko dañu juum ci njalbeen def ko muy combat wu euh, jigéen kese. ñu ci goor. waaw waaw euh, soit ñom la wala société bi responsabilité bi dinañ ci ñëwaat mën na am sax mu gëna yaatu loolu. Hum. mais lima ma bëggoon moy journée bi déjà journée mondiale euh, de la femme dafa am histoire euh dafa nek lu symbolique dafa am jeexital bu mu am. il est vrai que nak ñu bari ci Sénégal xeyna sensibilisation bi égul ci ñom ba ci sax ñi nga xam ne jàng nañu islam wala jàng ci école française nekk ay intellectuel baaxoo nañu ci journée bi ñëwee ñu ci dugal ay mbir yuy wane ne euh, lu xeebu la lu tax ñu am benn journée kese lu tax ñu jagleel leen loolu loolu man dama ci àndul moo tax ma buggoon ko ubbee parce que euh, àdduna ni mu sosoo mooy mbir lu mu yitteel yitteel doomu aadama dafa laaj ci àddu ci jamono nga tànnal ko bés wala ay bés yoo ciy waxtaan même si suñu diine yi ñu nekk sax Euh, du bés bu ne la ñuy tuddee tabaski du bés bu ne la ñuy tuddee korité symbolisme dafa am dafa am effet bu muy def parce que effet psychologique la nga jël ci at bi benn bés nga jagleel ko mbir wala nga jagleel ko combat. lenen li aussi moy dañuy wax journée internationale de la femme kese mais en fait nimu soso moy du journée internationale de la femme mais journée internationale des droits de la femme c'est-à-dire que combat bi du rek jigen ndax jigen euh, rap en en rapport avec l'homme wala en donc jigen combat wu droit wu jigéen Le mooy xeex ak yellefu jigen ni ci lolou liko indi won moy ci jamono limu mu sose dafa am ay ak yo xam dafa am ñuko am ak moo ko ñeneen amuñu ko lolou ci droit de vote la commencé suma djumul combat yi ci njëkk moy nak lañuy fexé ba jigen ni am sañ-sañu voter léegi nak problème bi moy yematul ci vote kese parce que ku ne xam combat muy bu jigen muy bu ñeneen bu ku mu mën a ci aduna moy so gañee dara da ngay bëgg di ci yokkat lenen loolu nga ci yokkat nak dina ci am lo nga xamné da fay légitime parce que ñepp akoy koy bokk mais daf ci am lo xamné ci combat yooyu daf ci toucher ay mbir yu sensible yu am rapport ak diiné motax nga boole ko ci question yi <laughs> yu am rapport ak suñu cosaan yooyu nak moy moy jara débattre mo jara discuter donc loolu xeyna ci biir waxtaan wi dana gëna a mais ci njalbeen rek lima japp moy amna ben orientation bo xamné war nañ ko ci xolat moy combat wu droit de la femme warul nek un combat sexiste li tubaab di wax hmm. warul nek combat wu dafa war nek combat wu société mais malheureusement même ñom so setlo man damay analyser des fois un discours ak sen waxine ba ci ñun aussi góor ñi di wax suñu discours ak suñu waxine on en a fait un combat sexiste dañ ko def affaire jigen ni léegi góor ñi taxawé né même ci waxam sank dafa né ñun suñu kuréel yi ak ñenn ci ay góor donc ci waa loolu yëpp dafa laajaat waxtaan bu xóot boo nga xam ne danañ ko gën a gëstuwaat tey eh, jërëjëf euh, Mouhamadou Baro euh, gëstukat la observateur la euh, dégg nañ li nga wax mel na ni nanga nga bi niñ koy niñ koy niñ koy firee baaxul ndax buñ ci settee góor ñi dafay niru la leen te góor ñi waruñ leen ci sett hmm. wane nga ne nag buñ ko toppee ci delluwaay bi mën na dellu ci ñaari anam yëpp man na delu ci jigen ñi ci ñi koy defé genn ci goor ñi goor ñi man nañu delu ci ñom ñi wan cee gis seen bop te lool waru ko won taxajuk liko waron taxajuk te ñu ne dafa am jigen ay akam ñu ko pertal ñu ñu laxasaayi pour xéxal koko te ci wara tabbi nga ne bu fekkee sa fàttaliku naka la mi ngi déparé won ci droit yo xamné amna ko ci wara waté ñu continue ak yenen ak yenen loolu na kon buñ démé ba diko xéx waruñ ko ben courriel wone nga ne fay na ci waxi fàtture léegi mu mu ci di góor ñu bari na ñenn maa yow kon bokkuñ ci <laughs> ñun boole na ci tayib soxna fàtture mais gëna bu ñu bokké déglu Mouhamadou Baro mhm. bala ñu ñëw ci benn question bi mhm. dañu dugg ci 50, 50, sur 50 ba 2000 lan 2032 mhm. lolu lu wut 2030 waaw lolu lan la wut euh, lolu ma ngi ci ñëw damay remercier Mamadou Baro hmm. parce que gis nga lim wax non hmm. lolu moy deug te loolu warul nekk may wax ne li wax dëgg la combat bi mi ngi démarré buñ ko ndax combat day yàgg ba ba ci yàgg mu feeñ ci kenn buñ jàppee fi mu 1910. 1910 1910 la fait 1909. 1909 1910 ci le combat bi feeñee ay jigéen jóg ne ñoom lu tax ñu leen di tere ñu vote ñu mm. bokk tamit ay xeex yoo xam ay ouvrière mm. ay ouvrière dañ ci États-Unis mu bañ koy naam am na góor ñu ci jàpp parce que nak biñ koy bi ñuy accepté journée internationale de la femme dañ koy féete ONU moo jël résolution bob, en 1977 te boobu góor a fa nekkoon mu mel ni kon góor gu fa nekkoon euh, ëmb àdduna yëpp dem na ba xam ne wax dëgg yàlla il fallait que il faut que jigéen ñi xeex seen ak ak yelleef mais góor ñi jàpp ci ndax bu ñu journée internationale nekkul benn côté mais nak yëpp day dox bi muy dox dafa dox femmes yi ko góor ñi taxaw loolu nag dafa dafa méngoo ak suñu socialisation parce que nit ki niñ la niñ la yare ndax nee ngeen aada ak diine niñ la yaree niñ la tàggate niñ la màggloo day da topp ba sa doxin ci biir àdduna te dañoo yaroon ne jigéen ma nga ci kër ga ma ngay togg ma ngay def nii dañoo yaroon ne góor du wax jigéen teg ci baat dañoo yaroon ne góor mu war a def yiy liggéey jigéen def yiy liggéey ba nga xam ne loolu dafa topp jigéen ci ay àqam ak ay yelleefam ba topp ci suñu doxalin waaye nag loolu ngay laajte cinquante cinquante Euh, d'ici 2030 nous avons ay objectifs vous nga xam ODD objectif de développement durable nous remplacer objectif du millénaire pour le développement donc fii 2030 nous avons la référence mondiale bi nit ñi di sukkandiku pour mën euh, vers le développement. donc nous ne Nous mooy ñan. ñoom mooy àdduna bi yëpp ñu fi yeewoo bi may commencé ci euh, organisation des nations unies donc nous, ne ñun lan la en 2030 pour le développement nous ne les objectifs de développement durable muy ODD yi mu que fukk ak De ñaar objectif objectifs mu nous ci benn nous ne dañ pour relever droit nous, ñi nous, nous, objectif 5 Nous ñu ñu ñu Nous droit yi ne objectif nous, dañ la euh, égalité nous, ak que nous, ngay xool ñu ne nag boo déggee ñu d'ici 2030, en matière de droit parce que adduna yépp yelleef la ci kaw yelleef yi ne jigéen am 50, góor am 50, ça veut dire na góor ak jigéen yam ci ci biir adduna ndax euh, Nelson Mandela nee na ma cité ko nee na bu fekkee ne yelleefu góor ak jigéen yamul kenn du nelaw kenn du parce que monde bi du nekk benn adduna boo xam dafa ci développement am ñeneen ñoo xam ay yeneen euh, euh, gëstukat yoo xam ne seen waxtam dañ koy déglu am développement bi mu am tant que ci kaw yelleef damay ngi ci télévision yelleef laay wax ci kaw yelleef doomu aadama góor ak donc le monde d'ici 2030 ça veut dire un monde développé maanaam bu dem ci euh, bu en 2030 buñ fa accès bëgg nañ ci kaw yelleef góor ak jigéen ku nekk am cinquante cinquante maanaam cent pour cent yelleef yi góor ak jigéen séddoo ko normalement xanaa parité dugg na ak ak bi du ak bi góor ak jigéen séddoo ko mooy cinquante cinquante loolu nag bu dee dafay war a am wax du ko àggale jëf moo koy àggale jëf yi mooy fexe ba li nga xam ne jigéen am ak euh, ñu fexé ba mu agsi ci manam ay action la yu local yu bax ay ay ay action internationale mën ci cité ñaar rek ma wax ci santé hmm. actuellement ci aduna bi lu ëpp cent millions de femmes dañuy gañu ci ëmb ak wasine té mo né bu fekkone ak jigen ak yelle fam demoon na fam wara ag a dotul am wala bu amé dotul beuri

donc ëmb ak wasin boobu tam day occasionné ay décès Sénégal bis bu nekk juróomi jigéen dañuy faatu ci ëmb ak wasin bi boo ko defee fukki fan mooy juróom fukki jigéen daf fi jóge boo ko defee ñaar fukki fan yaa ngi perdre cent femmes boo demee ci weer bi bu bukkule ko cent cinquante jigéen ñooy ñooy faatu ci biir Sénégal te loolu mun nañ ko moytu nuñ koy moytoo ñu indi ak ak yelleef yoo xam ne day tax jigéen fu mu ëmbee mën a am fu ñu ko jëlee en charge de manière qualitative maanaam mu am qualité ci liñ koy jël en ba nga xam ne Euh, Gagne, yu a ci ëmb ak wasin dinañ éviter parce que loolu may tudd diko teunk ci diko xayma ci ay ci ay nombre loolu amul France amul États-Unis parce que ak ak yelleefu un ci ci côté bobu dafa may wax ne amna côté bo xamné éducation éducation na ci Sénégal ba nga xamné légui ngi jigen fa fa éducation secteur

dana permettre ñëpp gis ci seen bopp. loo tuddee loi yooyu nga xam ne dafa favoriser. waaw euh, euh, boo boo demee ci euh, code de la famille bugguma ci dugg bu baax parce que maa ngi ci télévision te bagal naa ñi mel na yow <laughs> oustaz yi am na loi yoo xam ne foog ñu kase ko. dëkk yi nag ñooy toog góor ak jigéen parce que développement balaa moo am ak ak yelleef caa mën a jàpp yonent bi wax na luñ mel annisa u saqaiqu rijal ne ne jigéen ñi ñooy soppe yu góor ñi ci dund parfois nag ñi sant Touré si bëgg leen tàqale bu ko defee loolu mooy indi combat bi bon wane nga ne euh, ñu moytu combat boobu dox suñ diggante ndax su boobaa day jur yàq feeñal nga ne euh, jigéen ñi combat yi ñuy mëne léegi soxna Touré euh, nana am na lu muy moytu dugg ko ci code de la famille bi pour suuraale sama classe gi ñu demee noonu te pourtant mais tudd gi mooy seet ne lu tax nangam gi am ñu tuddee ci jigéen ñi nangam ñu toog waxtaane ko ci biir balaa génn ci penc mi comme loolu am solo la nga feeñal ne buñ demee ci droit yi nga xam ne yëpp dañ leen koy jox ci bitim réew ñu jël ko jàpp nga ne lu bari duñ ci di sóoraale ñu nekk fii ci réew mi ndax am nañ fi ay ay ndoneel yoo xam ne ay référence la yu ñu war a mën a roy nga tudd ci jigéeni waalo yi li xewoon nga xam ne loolu doy na exemple waroon nañ bu ñuy dem bitim réew yóbbaale ko comme référence fay loolu sax ci lay sukkandiku ñew ci sama laaj bi may laaj soxna fat Touré waxon na la légui na la bu ngeen mané combat parité bi ndax da ngeen ci sóoraale ñaar ndax ñaar ñoñu euh, dañ koy fuñu mën di dem muy li ñu tuddee ak aada nit kuy dund ñaar yi mi ngi ci mm-hmm. nga nek ci diiné bu la neex am dina bo tànn diiné la aada yi aada la mm-hmm. so démé ci l'islam dañ lay wax na la alxorfu chariatun maalam yuqaali fi nusus ñu né aada texte lay doon bu ñu mën a jëfandikoo fii di lu ñu mën a jëfandikoo fekk texte ñëwut ci alquran wala sunna teppi ko kon aada dañ koy jëfandikoo mhm. ndax seen combat bi da ngeen ci sóoraale aada yi mhm. di ci sooraale diine yi lu tax ma wax loolu mooy baro joxoñ ne fi léegi ay jigéen ci waalo ñoo xam ne def nañ loo xam ne histoire du ko fàtte ba pencam yàlla di taxaw bu dul jigéen ni waalo yooyu boo xoolee ci këri diine yi da nga fekk ay jigéen ñoo xam ne Euh, résultats yi nga xamne def nañ ko ci ëttu l'islam histoire du ko fàtte ndax da ngeen di sóoraale ñaar yooyu waaw euh, laaj bi dafa am solo waye damay rebondir tuuti si li Baro wax bismillah euh may wax ne euh, ñun suñu référence ci àdduna mooy suñu ay jigéenu dëkk bo set lo fat Sarr sax say bo déggé muy intervenir ma ngay wax jigéenu ndex

waye tay bu fekkone dañ la jappal bindal la ci Aline Sitoé lu bëree bëree bëree bëri nga xam fo tourner gis ko bindal la ci la xewoon walo defal la détail defal la processus defal la la ko indi won defal la le pourquoi koku defa meuna sax dugg ci njang mi ndax ne nga lepp lepp lu doomu aadama di def en matière de droit dafa objectif. parce que objectif bi moy solution bi ñuy indi rek pour pour disparité yi objectif bi tamit da fay tax rek équilibre am parce que lepp loy def en matière de droit. te sóoraale woo sa sociologie dëkk sa dëkk fa mu toll ci aada ak cosaan boo ko dugalee ci droit day dem du dugg du taxaw dafay nekk droit boo xam dañ koy dañuy voté te kenn du ko appliqué parce que àndul ak li nit ñi di dundu donc mu mel ne ñun bu ñu demoon bitim réew fekkee fa li nga xam ne mooy cadre de référence euh, yi nga xam ne moom la ñu teg en matière de développement dañu ne allez-y faire des actions locales action locale boo ko déggee mooy la ñu jëlee fee mënuñu ko plaqué dañ koy dans la sociologie suñu dëkk muy dund ko ci suñu aada ko ci li am ñun de manière spécifique du nekk un transfert brut buy ñëw rek dugg day nekk loo la a dugg mooy la ca la la dugg day xaar li tax muy xaar parce que boo defee placage du dem am lu bëri loo xam war nga ko également suñ Sénégal am nañu ay exemple en matière d'équilibre en matière de droit wax nga la société euh, Casamance Joola est une société égalitaire en termes de droit droit gour ak jigéen mu mel ne loolu exemple la ci suñu dëkk te ñu bëri xamuñu ko jëluñu ko également mettre ko en exergue pour mu nekk une référence permettre ñu ñu jëli la nga xam ne moom la ñuy jëlee bitim réew ko dugal normalement jaarale ko à partir d'un modèle parce que c'est un modèle donc pour dire que jigéen ñi xam nañu loolu euh, jàpp nañ ko xam nañu également ne am ay figures Euh, euh, may wax également ne euh, diggante góor ak jigéen en terme de de de droit la ñu wax parce que man mii di wax ak yow suma wàccee damay taajal sama jëkkër reer bu fekkoon ne waaw bu fekkoon ne demuma ci aada ak cosaan du ma taaj reer bu fekkoon demuma ci aada ak cosaan du ma duggi marché sama morom yi duñ duggi marché kon dañ naan nañu nañu séddale liggéey bi nga xam ne moo nekk ci biir kër gi ak li nga xam ne moo nekk ci société bi mais am na lu aada jox jigéen jigéen nañ ciy dox am na lu aada jox góor góor a ngi ciy dox waaye dañ ne ci àq ak yelleef soxna Fatou Touré nga may moom ma ma yëgal ma fàttali ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre mhm. ne koo xam ne dafa bëgg a jokkoo ñun pour yokk ci li ñuy wax dara mhm. wala mu question moom yi laaj euh, numéro bi mi ngi affiché ci serveur numéro serveur baa ngi affiché ci écran bi mën na jokkoo ñun mais mën nga continuer waaw léegi nag mhm. euh, bu ñu bu may wax ci aada aada dafa rëy ci doomu aadama gis nga tey boo tukki woon na euh, foo xam ne dangay lekk yàpp suba ngoon te gisoo ceebu jën rek da nga wëri bu jeun ci dëkk ba parce que le manger est culturel lepp ci aduna dafa basé wu ci culture kon lu ñu mën a tamit foog ñu foog ñu sóoraale suñu culture bi tay hmm. di wax ne tam religion bi dañ koy sóoraale demb rek ma ngi def gestu ci imam yi nga xamné ñom lay andal di liggéey ñu jox ma ben ben ci euh, ci anecdote ci umu salamata hmm. umu salamata bu mu toogee jakarlo ak sang bi sallallahu taala wa sallam ne ko ñun de dégg nañu mo gënon révolutionnaire ci femmes ñun de eh, sang bi dañoo dafa mel ni amul dara ci sang bi di tontu ñu ne aaye ko sang bi tontu su les citoyens les citoyennes les acceptants les acceptantes maanaam mu mel ne ci l'islam déjà teg nañu li nga xam ne mooy li nga également li nga de droit mais sama njàng sorewul waaye xam ngeen ko terewul ci biir lislaam am na lu war jigéen ak lu war góor donc mu mel ni ñun ñun dañoo ragal déséquilibre parce que nit mën nga bëgg di di régler benn problème ba indi déséquilibre te ñun jigéen ñi bëgguñu déséquilibre. soxna soxna Fatou am na ku ne ci yoon wi jël ku ma. am na ku ne ci yoon waaw. waaw salaam mbokk mi kan la. waaw El Hadj Malick la. Ah? fooy wootee. maa ngi woote Tivaouane. El Hadj Malick yow la ñuy déglu. waaw ma damaa bëggoon a participer ci émission bi di rafetlu émission bi. Mhm. di wax ci parité rek may wax ni sénégalais yi. Mhm. Sénégal yàgg naa am ay jigéen ñu jàmbaare. Mhm. yàgg naa am tamit ñu def seen seen mission ba réussir ko. mais problème bi parité li ma ci xaw a mooy ñoom li ñu bëgg a imposer mooy loo xam ci Europe la jógee ci Occidentaux yi la jógee boobu lan ma bëgg a ni mooy maanaam jigéen baa ñu jël li suñu maam yi defoon suñu jigéen ñun danoo am ay maam yoo xam danoo wane woon seen cër Aline Sitoé Diatta mi ñuy wax mhm. mu sa xëccoo naan ab postu lii ak lii dafa wane maam liggéey domaine bi mu nekk dafay liggéey wane ni lu góor man jigéen man na ko mais pas dem ci cër boo xam jigéen góor a ko reer tey ma bëggoon a laaj ndaw soosu ma koy laaj ba xam ñoom ban ban jàngat lañ am ci mbirum hooligan yi waaw ndax Paris ak hooligan yi man xaw dafa xaw a méngoowul daal may laaj ba xam ñoom après polygame yi ndax sëriñ si moo leen jaaxal ba nanguwu ñëw attaqué boobu cër ndax damaa gis yeneen réew ñu attaqué mbirum polygame te Sénégal dégguma leen ci ma leen di laaj ba xam sëriñ si lañ jaaxal wala ndax parité ak polygame yi moom ànduñu tey loi parité bi ma dafa nar a tardel suñu réew mi ndax nit da koy jël ci compétence mais pas ni da naan da ngay séddale tolluwum fu ñu séddale dana war a

parce que nee naa bu ma exemple assemblée nationale on est à 42 supérieur à 42 pour 20 le cent la mu sa doon donc ñi ngi ñuy jox suñu parité mais jigéen ñi tamit dañu war a taxaw dëkk bi taxaw def ay mécanismes yoo xam ne jigéen dina avancé moom lay wax sànq je l'ai expliqué jigéen dina avancé ci njàng ba fañ ko teg mu mën faa toog ñu jox ay opportunité ba mu avancé ci yenn domaines yi ba nga xam ne lépp luñ ko laaj mu mën koo fees loolu processus là.

yaakaaroon ne ñun mënuñu ko régler góor moo ko mën a régler danañ ko régler ba nga xam ne vraiment euh, résultat yi danañ ko am looy tontu ci laajam bi wax maa ngi jëm ci polygamie waaw maa ngi ci jëm hmm. Hmm. maa ngi jëm ci polygamie mu nekk li ñu wax soxna Fatou ñu jël ki ci yoon wi te ñëw am na ko bi li ngay wax déggu ma ko de kan la li ngay wax ñëw dégguñu ko de ayo waaw mu mel ne

Euh, objectif bi moy développement. tey ñu participer au développement. jërëjëf euh, soxna Fatou Touré jàpp naa ne kon question biñ doon laaj. Mhm. Euh, tontu nga ko ci polygamie bi moy sóoraale ngeen diine. Mhm. soorale ngeen aada ndax bu ñewé ci polygame aada da ko saxal diine saxal ko kooku laalu len ko du sen combat sax sen combat moy jigen ñi ak goor ñi nañ leen yemale top len ci par ay ay ay résultat ci place yi nga xamné ne fay bokku di liggéey mais jëmu ci diiné ji jëmu ci aada ji wone nga it ne yéen ngi tek seen bëtt ci jigen ñi nekk ci réew mi doon fi ñu ñu roy la yéen ngi gëstu seen taxawaay bu baax a baax joxe nga ci misaal de sox soxna Fatou Sow Sarr mm-hmm. saa buy waxtaan dana indi référence ci jigéenu ndeer yi mm-hmm. kon mel na ni bàyyi wuleen bàyyi ñàkku leen bàyyi xel ñuñ mel mm-hmm. wane nga ne suñ jëlee jigéen ñi nekk Casamance ci seen société ni ñu koy dundalee société boo xam ne modèle la bu misaal la boo xam ne référence la bu ñuy làmb daj ko kon aada yi ci Sénégal mi ngi ci seen biir yéen a ngi ciy bàyyi xel diine ji mi ngi ci seen biir yéen a ngi ciy bàyyi xel kon mel na ni parité bi boolewu leen ci ñaar ñooyu Euh, kuy wax parité euh, ci combat jigéen ñaar dana nekk sa gàggag moom dégg nga lim ci tontu gàggag bu njëkk bi mooy diine ak aada yow noo jàngate loolu. waaw benn bu njëkk bi rek bu bi mu wax te mu am solo lool mooy euh, ci xëy na ci turu réseau Siggil Jigéen la la gën a la gën a waxe hmm. parce que ci la nekk. Hmm. mooy wane ne ne aspect lutte pour ci parité bi xeex bi.

ci ay ay ay cas spécifique la rek loolu la nit ñenn ñi di mooy di ci wax parce que sànq bi ngay tudd sànq ak ak yelleef wax nga ne jigéen mooy ëmb di wasin que ci buñ doon euh, dooleel ak jigéen tey ci aspect yooyu nga xam ne dafa particularité dafa nekk particularité jigéen xam nga ne jigéen li mu ciy am góor du ko ci am parce que loolu intéressé wul góor ça veut dire que euh, yemale dafa am aussi esprit bu ko war a guider mooy équité yemale munoo ne

bu joté ma def ko man waxuma genre bàyyi xel bob bàyyi xel bi moy ñu gëstu même bu ko état defagul parce que waxna deug histoire du Sénégal bindaguñ ko sax récemment le président Macky Sall décidé jox ko Ibader ñukoy def mais amna ci lo xamné ci sen projet yi ak su suñuy projet ñun ak société bi société civile ak ñep war nañ ko gëna def réseau Siggil Jigéen nga xamné def na 21 ans war na def projet mission out ay chercheurs yu dem gëstul ko jigéen ñi ci ci këru diine yi ak këru aada yi lan lañ fi def ci njàmbaarte lan lañ fi def ci jaloore ba tënk ko mu nekk doctrine bu ñu mën a jaay parce que àdduna bi rapport de force la Europe ni mu ñu bëggee jaay seen culture noonu la ñu war a ñun taxawee armé wu pour wane si su ci ci ci mondialisation lan la suñu aada yi indi mais malheureusement xamuñu ko sax ba koy gëstu foofu rek lay waxee beneen bi aussi mooy effort bi sigil réseau sigil jigéen di def xëy na mënul yem ak ñeneen. am na ci ay organisation yoo xam ne xëy na amuñu maitrise boobu ba agenda bi lu mu ci luñ ci feeñal rek suñu demee seen dëkk parce que day feeñ sax ci seen waxin des fois mën naa am ay rëcc rëcc la mais euh, tubaab yi par exemple ci ci ODD yi ñu bokk am na ci lu ñu gëm ñoom loo xam ne ñun suñu ko indilee war nañ leen ko delloo parce que du suñu cosaan suñu aada dama la ciy jox benn exemple genre concept la am na lu muy tekki mooy góor ak jigéen dañu war a yem ci ay àq ak yelleef ak yu ni mel mais ci biir genre boobu ci agenda yi am na lu ci pays occidentaux yi di def loo xam ne mënul muus a ko mucc ñun ba ñu accepté ko parce que dëppoowul ak suñu ay cëslaay man bu yàggul dama def benn séminaire boo xam ne pour wax la aussi lu tax ñu jara moytu mu mu jara moytu mooy ñoom suñ ko gëmee comme orientation duñ ci yem dañu koy bëgg a su ñu ko imposer mu dëgër dañu koy jaarale ci ay méthodes yoo xam ne tôt ou tard dañ la ko danañ la ko dugal par benn benn ba nga gëm ko mooy danañ def euh, danañ dugg ci ministère yi danañ dugg ci société civile bi danañ jël réseau jigéen ñi di ci tàggat di leen wax ne ah lii ci ay droits civils et politiques la war nañ ko war ngeen ko accepter parce que société bi dafa war a évoluer yooyu buñ ñu koy def dañu war a am njàmbaarte am yuñ ci nangu am yuñ ci bañ mais yombul parce que koppar yi ñëw aussi jege bitim réew des fois mooy conditionné yenn organisation yi muy féminine muy organisation société civile góor ñi mooy ñoom dañ lay wax ne agenda bi lii la laaj soo nangoo nga doxal ko mën nañ la ci jox nangam soo moytuwul nag fulla gi ci war amoo ko mën nga dugal ci sa agenda loo xam ne koppar bi danay tax wala ñu imposer la ko dama la ciy jox exemple wax naa la benn rencontre boo xam ne ministère de la famille ñoo ko lañ ko defaloon man dama ci bokkoon nekk ci le seul journaliste bu ko fekkee mais ñu ñu ñu ko doon defal daf ci am kenn koo xam ne sénégalaise la ak benn tubaab genre naka lañ ko war a dundee ak ci wàllu déjà euh, pensée ak xalaat dañu def benn exercice document bi ba léegi maa ngi moom document bi dañ ci def ay jouet jouet yi dañ ko def jouet mooy fooyekaay <laughs> fooy xale yi di fooye dañ ci def fooyekaay yoo xam dañ la ko tegal ne léegi soo amee doom bu góor ak doom bu jigéen di leen ko séddale yan fo yan yan jouet ngay jox góor yan jouet ngay jox jigéen ñu ci bëri si ñun ci séminaire boobu dañ jël jouet yi nga xam ne ñoo dëppoo ak ñun suñu aada yi jigéen di fooye comme létt wala ay nangam nga jox ko ku jigéen yeneen yi nga jox ko ku góor mais ñu bari ñu def loolu daf leen wax ne amu leen note bu baax ñii zéro lañ am ñii un deux <laughs> mais buñ ko laajee lu tax xam nga lu mu mu ne lu tax ngeen di jël ay jouet yi di ko jagleel jigéen alors que létt bi euh, doomu tubaab bii ñuy létt góor mën nga ko jox sa doom bu góor xam nga loolu li muy firndeel rek mooy ñoom li ñu nekk di dund weesu nañu ko sax ci wàllu xalaat dañ ko commencé dund tey ci Europe amna ci ay xéetu dérive yo xamné commencé na fa am ci walu genre lañ ko ñom ni ñu conservé genre ci la juddoo moy ne que même ci armoire xalé bi légui bu góor bi da nga ci bolé ay yéré jigen yéré góor bu ko neexee mu solli bu ko neexee mu sollale ci école yi amna ci ay cours yo xamné ne ñu ngi leen koy jox dañ leen di woon ne amul jigen amul légui doomu adam, mo am yoyu la wax ne xéetu yu mel noonu ñun ñëpp ñoo wara taxaw waxuma rek organisation féminine yi ñëpp war taxaw ba def barrière ci lolu parce que ñoom lay seen aada jig leen te ñu mën ko def te du leen yàqal dara amaana te yàlla xam ne sax mi leen di yàqal parce que seen société mi ngi dem ci ay ay dérive ak ay ay ay mbir yoo xam ne yu doy waar la ñun yooyu lañu ñu war a moytu ba suñ ñu ko imposé it ñu taxaw temm ba loolu bañ am man loolu rek laa ci bëggoon a. tey yokkat eh, jërëjëf euh, Mouhamadou Bara bu ñu la déggee mooy feeñal nga ni bëri na euh, bu ñuy yëkkati waaraami tuuma. di ko jëmee ci diine ci gisin mu gisee ci yemoo diggante góor ak jigéen jombut ña ko wax ñoom la waaye lislaam dafa mos a yemale góor ak jigéen soxna Touré dégg naa ko fi léegi mu wax ko ci ne mu ne texte buñ ko nettee woon ci Ummu Salama waaw innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat maanaam fu yàlla tudd góor tudd fa jigéen mu ne ci cër boobu nga xam ne moom ko ko laajoon yonent bi kon mel na ni ña firee noonu diine ñoo ko firee mais lislaam wane nga ne jaadu woon na it ñuy jéem a euh, fexe ba lu ñu civilisation Occident bi ñuy jox ñu seet li ci dëppoog suñu civilisation ñu mën ko jëfandikoo loo ci xam ne jàpp nañ bi ñu ko dugalee ci suñu biir danañu indil jafe ñu moytu ko ndax ñoom dana am jeu yu ñuy jox yoo xam ne wala plan yu ñuy tegal bu ñu ko jëlee mën nañ dugg ba ci biir ñu door a xam li ñu doon jox lan la fekk gënul wane nga ne ñoom dem na ba léegi yegg nañ ci ne mbalaa mbalaani góor yërey góor ak jigéen boo amee doom bu góor yëpp nga ko war wutal moom nag mooy choisir bu ko neexee sol bu góor bu ko neexee sol bu jigéen jàpp naane ne même buñ ci yëgu tey jege nañ ko ndax booy génn ci mbedd mi léegi jàkkaarloog benn waay bu sant Cissé wala ture doo xam góor la wala jigéen la. waaw doo doo xam tuuma <laughs> jigéen dama wala jigéen la. wala ay saag wala yor ay saag te yooyu yëpp fi ne eh, boo ko tuddee am gaa yu taxaw ne la am nañ droit pour def ko te jàpp naane ne d'accord. Eh, bindkat yi dañuy wax ne sa liberté mi ngi jeexee fa liberté keneen commencé kon loolu war nañ koy sóoraale tey euh, soxna Fatou Touré bëggoon nañ xam parité bii jigéen ñi ci àll ba classe ak alimatu caam bi nga xam ne sax nangu ñëw liggéey actuellement ñooñu seen cër naan fan la toll ci parité boobu mm, maa ngi ci ñëw waaye dama bëgg rek euh, rappeler ne hmm. réseau Siggil jigéen def na gëstu yu bëree bëree bëri bëri ci domaine yi laal jigéen yëpp ak yi laal àdduna lëkkale jigéen ak euh, kii yam may invité monsieur dem mu ñëw réseau xool ñun suñu ay gëstu ñu partagé ko mu gis ne loolu muy craindre ñun ñu ngi ci gëstu bind ñu ngi ci. may wax également ne réseau Siggil Jigéen am na. benn ans bala nga dugg ci réseau Siggil Jigéen ñu jël ki ci yoon wi te ñëw allo. naam. parce que parti bi ñu waxtaanee loolu am na yenn tubaab yu ñu Sénégal loolu moomuñu ko. nga ne. parité. waaw. mais ñun jiguñu ñu sénégalais. kii wax kan la. man la Tamsir Koundiagne. ah. Tamsir. Tamsir fooy waxee fooy wootee ni maa ngi woote Touba. yow la ñuy déglu Tamsir. li ngay waxtaanee dafa nekk lu am solo. Hmm. actuellement ci réew mi. waaw. parce que parité dëgg sax ku jigéen lu mu wax sànq yàlla fu mu tuddee jigéen tudd fa góor. Hmm. waaw ja jàll na mu ne yàlla fu mu tuddee góor tudd fa jigéen sa wax. waaw waaw euh, <laughs> may wax également 21 ans tey dañuy delloo ay budget maanaam hmm. dañuy delloo ay partenaires parce que dañu am suñu ligne éthique am suñu ay valeurs ci société sénégalaise dañuy mais dañ koy dañ koy ci kaw ay valeurs

kon booy liggéey da ngay liggéey topp sa dëkk ni mu doxee la dynamique du pays en terme de culture ak diine loolu dafa am solo euh, may wax ne eh, ñun defuñu xaaj ak seen entre jigéen ñi nekk ci àll bi ak jigéen ñi nekk ci taax yi ñi nekk ci àll bi sax moo ñooñu gën a soxal hmm. démb dafa am benn euh, dëkk bu lakk rek may xool jigéen ñi tuuti ma jooy ñooñu dañoo sonn donc ñooñu sonn ñoom ñooñu ñoo war a gën a soxal àdduna bi sax ñu tiire leen jox leen ndox tiire leen jox leen latrine ndax bari na dëkk yoo xam ne da ngay waax ba ci biir àll bi jox leen latrine tiire leen jox leen jàppale leen ñu mbay mbay bu baax ndax ñu am lekk bu baax maanaam nutrition bi mën a jàll ci yaay ak ci doom ji ndax euh, yaay ak doom mën a mucc tiire leen yëkkati seen koom-koom tiire leen moytul leen euh, mutilation génitale tiire leen ci lépp lu baax kon bu ñuy wax parité buñu wax ak ak yelef tax donc buñu wax parité buñu sañoon jigéen ñooñu dañuy dugg ci sen li nga xamné ne s'en euh, commune, ci sen commune yi nekk décision de décision au niveau communal mën fa wax atte mën fa am lo xamné jigen daf koy daf koy euh, daf koy day doli jigen ñi nga xamné ne ngi taxaw wax ñi ci 14 régions du Sénégal ndax bëgg jigen ñooñu joté ci sen ak ak yellef joté ci en terme économique joté ci en terme sanitaire joté joté ci en terme de yenn aada yi nga xamné da fay lor jigen ñu won leen nan lay loré jigen ba ñu ñànk aada yoy ànd ak ñun ndax jigen ñooñu ñu mën leen a xëcc ñu nekk ci condition yo xamné ne daf leen di teg ci euh, li nga xamné moy euh, ñu respecté leen ndax amna ñak fu muy tollu nit ki da ngay da ngay melni bayima donc ñun suñu suñu xex loolu la ña nga Sédhiou ña nga Kolda ña nga Matam ña nga ci waxuñu Sédhiou de àllu Sédhiou yi nga fu ci nek ki ma andal ni tay guddi day dem day dem Sédhiou donc foofu lañuy waxé en terme économique mais buñu waxé parité parité day bayyi loolu parce que parité mom sur le plan euh, électif lay wax donc jigen ñoñu li ñu mën moy renforcer leen ci sen ak ak yellef

jigéen ñooñ di jàmbatu bu ñuy am doom uh-huh. jafe-jafe yi mu leen di fekk ci saret lañ leen di dugal uh-huh. ñu am ci ñoo xam ne dañuy dox ba am ci ba yàlla sax parfois ñuy amee doom ci àll bi uh-huh. bon ñooñu ñu jàpp ne jafe-jafe yooyu ñuy misaal jàpp ne bu fekkoon ne combat yi ngeen mën ci biir Dakar wala ngeen jógee ko ne ñoo ngi dem région de Kaolack bu ngeen demee yem ci biir capitale bi xam nga foofu na am na yu sedd am na yu neex mais du ngeen jàll jàlle bi ndax jàppale loolu tax ñu gis ne ñooñu gisuñ seen bopp ci yéen ñun ne dañ dem ci àll ba ca ndoxu Casamance <laughs> dañoo jóge ndoxu Casamance bi tey si suba ga bato gaal ga suux hmm. ñun ci yooyu la ñuy dem dañoo jóge Casamance tey jii hmm. boo ñu gisee ci biir bato bi danga nga naan ñii léegi ñu bëgg a dee ndax ragal <laughs> ci suba ga gaal ga suux hmm. ñun foofu la ñuy dem ndax boo ne da ngay sigil jigéen da ngay xool ñu gën a sonn Hmm. moo tax ma ne la ñun ñi ngi dans 14 régions du Sénégal amul nag lu ñu laalul économie ñi ci santé ñi ci éducation ñi ci euh, euh, grossesse précoce yi ñi ci mariage précoce yi ñi ngi ci lépp ndax bëgg jigéen ñooñu gis ci seen bopp ci avancement yi jigéen ñi di am ci taax yi li nga wax nag c'est une question très importante parce que boo c'était opportunité yi jigéenu taax yi am ñoom amuñu ko amuñu opportunité yooyu jigéen joo ci gis lu ci ëpp day duyi ndox indi yow soo nee nii sërë bi ne yenn saa nga am ndox mu tàng ak ndox mu sedd jigéen joo ci gis day teg matt taal yow da ngay ñëw euh, euh, ne nii sa gaz am ñeenti fa mën a toggandoo ñeenti ñeenti ñeenti plat wala ñaari plat loolu yëpp c'est parce que ya a une disparité entre jigéen ñi nekk ci taax yi ak jigéen ñi nekk fee ñun loolu la ñu xam ba nga xam ne ñun. fii lépp fële la sa sa mbokk mi war a dem Sédhiou suba. waaw wala ci guddi gi. Sédhiou bañ a yem ci capital bi. Mm-hmm. dem ba ca àll ba mu fas fa yéen togg añ xool ni jigéen ñi toggee añ. Ah. bu ñëwee dana changer discours am. day dem kunkaane. xam nga yooyu ñu ngi ci biir àll bi dem hmm. dañuy dem dañuy dem ci bi réseau sigil la parce que hmm. on est dans la périphérie ndax loolu nga wax hmm. loolu la ñu jàpp ne jigéen ñooñu ñooñu gën ñun jigéen soxla développement tey waaye boo parité mooy ñu permettre rek jigéen ñi ña fa nekk am ci ño xamné da leen leen jappalé ba duggal leen fa ñuy fa ñuy jëlee décision yi ci seen communes parce que nak on est dans la communalisation intégrale donc problème yi fiñ ko mëna a régler ñoom mooy au niveau de leur de leur localité ci seen commune yi ñu bokk ci jigéen ñi nga xamné dañuy dugg ci instance yi mëna jël ay décision ci instance yi xamné da fay da fay kii femme yooyu bu ñëwee nak ci 50 50 mo gëna a large le défi, c'est le développement local 50-50, c'est le développement bi dem ci kaw en charge parce qu'on lutte contre la pauvreté Nous nañ en charge on lutte contre euh, le non-accès à à l'eau on lutte contre le non-accès aux latrines donc vraiment nous ngi une di mais question pertinente parce que nous, avons. des

tok ci place réseau sigil jigéen kilim mhm. yi dila upp ngay nan ndox mu sedd da nga sans ce discours yaakaar naa loolu nan ndox mu sedd ndox mu tang la ñu naan <laughs> tey Mouhamadou Baro eh, yow no gisi parité bi ñi xex ak jigéen ñi ne ci kaw ki ndax japp nga ne gis nañ ci seen tier comme niko soxna Fatou waxe man de lolu ñaari mbir la ci setlu moy hmm. benn bu ñëk bi liko jur question bi sax gëna yaatu jigéen ñi fofu c'est-à-dire que disparité mo am digënté grande ville ak hmm. dëkk yu dëkk yu nekk ci ci biir hmm. Sénégal loolu nak da fi yàgg hmm. euh, loolu ay question politique la hmm. ak ay choix ay option politique mooy suñu état yi fi nekk depuis indépendance daanaka euh, légui lañ ko commencé corriger di wax ci PS e, di wax ay piste rural di wax ay yoy mais dañu jëlone euh, dëkk bi rek li ci ëpp solo yëpp ñu boole ko teunk ko def ko ci taxi té mu nekk lu doy war parce que dañuy fàtte né taxi dundal ba ñu mel ni Dakar mu mel ci bi la colonisation même c'est pour des raisons économiques pour que gerte bi jóge Saloum wala li ñu def ci Casamance mu jóge fa nourrir waa grande ville capitale malheureusement disparité boobu moo continuer loolu nag am jeexital maintenant ci couche yi gën vulnérable donc maintenant jigéen ñi ñu ci gën a maanaam néew doole léegi ñu nekk ñu sonn ñu nekk et tout combat boobu du combat jigéen ñi kese néew cest à que jigéen ñi kese kese bu dee ci combat boobu lañ jóg ñu bàyyi leen ko mënuñu ko réussir parce que option politique yi ci war ak liggéey bi ci war tey même kilifa diine yi laay wax kilifa diine yi suñu jógul ci loolu pour disparité am bañ a am maanaam dëkku yi kaw yi ñu jox leen seen àq defal leen ay yoon ni ñu war a yittewoo yenn question valeur ak sàmm suñu ay ngor yooyu loolu la ñu war a yittewoo question de développement question économique parce que aussi nit ki soo ko waaree soo ko dugalee ci diine te amul lu mu lekk amul lu mu naan dana dana bokk ci lu koy dugal ci njombe te du ko tey jàpp ne combat la te loolu dafa am lu lu tax loolu am mooy médias yi aussi dañ ci am responsabilité hmm. suñu médias yi ñoo présenté société civile ak combat jigéen façon boo xam ne dañ ci boole jigéen ñi jàng ci l'école bi bëcc ngéeme ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk dëkkaan yi loolu dañ ko war a corriger waat tey xoolal télévision wu Sénégal yëpp wala rajo yi su journée mondiale amee de la journée internationale des droits de la femme jigéen yi ñuy wone di leen valoriser yëpp ay jigéen yu ñu xam ci média yi la. classe facturé waaw ñoom dañu leen paax facturé day ñëw ci télé yi ñaari yoon ñetti yoon ñu xàmmee ko suba ñu décorer ko ne jigéen bu na effectivement mu ngi def liggéey bu am solo ay moromam ñi ngi koy def. mais ñaata y ñoo nek ci village di def lu lo parce que tay développement bi ñuy wax fofu la mhm. ñi liggéey kan mo leen dakk liggéey ku leen dakk mais kenn du leen xam kenn du leen donc lolu aussi presse bi médias jouer un rôle ñu ñu ñu centralité mbir mi combat de la femme ñu bañ ko yemale def ko combat xolal da ngay sa yaram day daw soy déglu chaque année ñuy ñuy ñuy décorer ay jigen mhm. ay jigen yu siiw rek yo xamné ne démon demoon salon di nga fa fekk fukki décoration au nom de quoi lañu wara décorer ben femme parce que fay génn télé parce que parce que day wax radio bàyyi jigen yi nga xamné amana sax femme bobu ñuy décorer la tax mu am ko résultat bi ci all ba lay dem. Mhm. ñom réseau civil jigen liñu am dañuy dem ci all bi. Mhm. donc il faut corriger bu dé disparité la rek lañuy corriger. lolu aussi war nañ ko corriger waat. mooy centralité mbir yi ñu delloo ko fa mu nekk. beneen bi. Mhm. mooy euh, combat wu euh, euh, kii ci ci ci dëkk dëkkaan yi. Mhm. su ñu demee nañu valoriser la ñu am ñu xool aussi ñoom la ñuy def ci ay jéego te réussir ko équilibre ya fa nekk ñu bàyyee leen ko. bañ leen imposer loo xam ne aussi dafay tas parce que tey man am na man nekk def naa nekk naa reporter ci ay dëkk dëkkaan fekkee ay organisation jigen yo xam des fois problème bi am ak ni ay ay ay ñoñ goor ñi moy su su réseau yi ñëwé ak association yi lañ leen di wax des fois day créer ay dysfonctionnement yo xam day jull ay tension ak yu ni mel yoyu nañu xolaat naka lañ koy défé li ci jot ñu gum ko ci combat électif bi mom je crois que loolu lu yanu mana la moy bu ci walu liggéey la ñu positionné jigen ñu am seen àq bu ci walu Euh, élection la bu dee mairie la jigéen ñi am ci taxawaay bu ñu war a am foofu aussi dàqontewul ak li auditeur bi sànq posé te soxna madame Touré tontu ci mooy warul nekk lu mécanique wax na nag parce que loolu def man maa ngi koy sax gën a leerluwaat tey wax na ne accès bi mooy am après suba ñu xool qualité mais dama bëggu ñun su combat yi su jigéen ñi ak góor ñi wala société bi di di wax ci àq jigéen nañ ko bañ def lu mécanique tay ma jox la exemple. Hmm. parité bi am ci Sénégal. mo ëpp doolé parité bi am ci France en terme d'élection, ci réalité manam nombre de jigène femmes yi nek ci assemblée nationale suma ma ëpp na parité bi nombre de jigène yi nek ci France. Hmm. mais qualité bi France am ci participation jigène mo ëpp bi am Sénégal donc mo lay wan mbir mi du warul nek lu mécanique rek lo xam dañ naan na fa jigéen ñi ne na fa ñi né warul nek aussi kese. nañ fa dem ba pare ñu doog leen former ëllëg. waaw mais mais nañ fa yóbbu ku ko matee. mais yóbbu sa classe nga dem tool di nelaw. nañu yóbbu rek ba mu bëri ñu ñu jàngal leen. même bu ñuy tool di nelaw. réseau Siggil Jigéen. <laughs> femme femme yi nekk assemblée yëpp dañu leen a jël di leen former di leen former di leen former ni ñuy jëlee parole réseau Siggil Jigéen bii. mais mën leen ko woon def laata ñuy yegg ensemble laata ñuy àgg def nañu wante da ngay dolli pour ñu mën a àgg fa nga xam ne du du mel ne li ma dem di wax. <laughs> baro fu ñuy àgg baro li may wax dañuy àgg foo xam dañ naan ah jigéen ñi den dëkk te jaaxal nañ ñu. Hmm. Eh, jigéen ñi bett nañ ñu donc ñu nag ñun ñu nag yéen ba ci kanam rek. di ngeen gis ne jigéen ñi nekk assemblée nationale dinañu jël parole dinañu wax dinañu am fu ñu àgg te ñi ngi koy def tam ci jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ci banlieue bi ñi ngi koy def ci jigéen ñi nga xam ne ñi ngi également comme ni ngeen ko wax rek. Euh, ci all bi nga xamné ñoko gëna soxla lool yépp ay renforcement la parce que on n'a pas eu les mêmes opportunités wax nga ko légui né nga combat bi warul yem rek ci jigéen ni combat bi dafa war a combat bo xamné ne euh, ñëpp ci wara bok nek lo xamné c'est des politiques c'est des approches c'est des c'est des c'est des mécanismes yo xamné dañ koy teg ba paré état bi moko wara war ba paré jox nak loo loolu nekk opportunité pour jigéen ni ak pour sénégalais bu nek pour nga mën jàpp ci li nga xam ne mooy mooy xëcc ñooñu yégal leen ba ci kaw ndax ku nekk xam na ne soo génnee Cees rek yaa ngi ci lu tàng yaa ngi ci lu metti yaa ngi ci leneen ba ba ngay ku nekk xam na ne boo génnee Kaolack rek yaa ngi ci lu tàng yaa ngi lu metti ba nga nekk Casamance fu nekk kon nag waroon na nekk yoon loo xam ne day am les mécanismes qu'il faut mhm. les politiques qu'il faut am les approches qu'il faut ba nga xam ne boo jógee dakaar tali ba ngay ba lay ba lay yóbbu ba Thiès moo lay yóbbu ba Bunkiling

buñ fa toggé wax ci suñu kàddu dañ fay toog wax fa suñu cadeau en attendant ñu mëna jël cadeau bo xamné day nek cadeau bu kenn dul dindi am na ku ne ci yoon ñu jël ko nga togalé ba xam allo allo allo assalamu alaykum wa alaykum assalam mbokk mi kan la ah as malik la alaaji malik bismillah ah, daan wax ndaw si rek maniko hmm. pour man man mi day fay bien bok bokk man dong cay góor mais lima ma bëggoon rek ñu wax ñu bañ di wax affaire góor la ak jigéen hmm. maanaam yokkuteg jigéen ñi avantage ñëpp la. waaye hmm. képp koo fi gis góor goo fi gis muy dañ dañi jigéen ko tax muy dañ dañ. Hmm. kon tey jii bu amee jabar joo xam ma nga am ci lu mu jàpp ba man a indi daraja kër ga dina ko nuppal. Hmm. si ma doon séentoo ñoom seen liggéey ñu gën ko faa def mooy ñu jéem a gën a former jigéen ñi ci yàq ji ñu yàq man pour man foofu mooy li gën a am solo am nga réew mu nekk da xool yow ban problème nga am. ñun problème bi nu ñun suñ jigéen ñi ñi am xaalis ba pare ñi nga xam dem nañ liggéey am xaalis ba pare niñ koy jàqate foofu pour man lan leen war a gën a former wan leen ni yéen a góor ña yam yéen a war a yam ay ambition tey góor ni war a amee xaalis ni tey tabax kër wala day indi société noonu la jigéen war a amee ambition boobu mais malheureusement boo jigéen ci àll bi amaa na kon taax yi sama naa mu am ci ñuy def loolu mais àll bi ñi ciy dajale xaalis yépp ci ay natt ci ay ndawtal ak yooyu ci aw xew xew lañ koy programme kon man pour man foofu la liggéey bi gën a kii tey Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réew mu développé wul la danoo war a avancé tolluwun fu ñuy joxee nit muy essain pour man yéen a war a jéem a liggéey ba jigéen ñi ñoral seen bopp ndax amoon na jigéen ñoo xam ne nekkoon na ay candidat mais jigéen ñi seen bopp sax du leen wote pour man yéen a war a gën a liggéey ci suuf ba nit ñi gëm jigéen ñi mais fal la ba pare ngay essain ci réew moo si ni dara doxul loolu problème la. du yoon <laughs> jërëjëf El Hadj Malick nee ko du yoon fal nit ko duñ ko fal muy essayé dañ koy fal fekk liñ koy fal mu mën ko. est-ce que à ce niveau rek la. <laughs> bu leen ma yëngal de. <laughs> Fatou Touré dégg nga El wax na góor góor ko gis muy dañ dañi. góor ñë jigéen na ko tax di dañ dañ kër gaa ko tax a dañ dañ gis nga sax moo tax ñu bëri ñu bëri joxe nañ ne. góor ñi looloo tax ñi gaaw a dee. parce que góor ñi toujours ñoo njëkk a dee jabar yi ndax ndax dañ dañ ji rek. pour yéen. waaw statistiques yi wane nañ ne bu ñuy juddu jigéen góor ñee ëpp bu ñuy juddu bu ñuy dem ba cinq ans mortalité bi góor ñi lay jàpp jigéen ñi gën a dem. mais ñun dañu xam ne tamit ñun dañ ñu yar yar boo xam ne dañoo ubbeeku nekk ndey ji seex jigéen dañ koy yar yar boo xam ne kaay togg kaay fóot sa càmmiñ bi summi na chemise am jëlal fóotal ko defal ni defal ni sa jëkkër nangam xam nga kon dañ lay yar ci yaru accepter les conditions de vie.

goor ñi bu ñuy dawee jigéen ñi lañuy dawal jigéen tam jigéen lu mu daw këram lay dem hmm. jigéen bi nekk lay tok ba ci amune wa yow man ana li ma fayeeku lépp nga dugg ci biir kër gi parce que aduna tam non la gaspillage bi non non ma ngi ñew ci gaspillage bo bokké ci ben environnement danga koy dundal goor gi buy daw di indi légui aduna moo tax ñu neen dañoo bëgg développement légui aduna dafa metti ba nga xamné goor ñi bañu ñu dañoo mënul góor mënul jël en charge li xew ci kër yépp foog jigéen ji teñ teñ même boo doon jaay glace wala ngay jaay radi glace wala ngay jaay beñe am na loo xam ne foog nga apporté ko ci kër gi pour kër gi mën a am benn naataange boo xam ne xaw na baax kon na ñu jàpp ne góor day daw jigéen daw ñu ànd def seen biir kër góor nag la yàlla xëna xëy na sur le plan religieux gën a sas daw indi sa biir kër waaye jigéen tey fi ñu bëgg a toll ci 2030 nga xam dañ ne cinquante 50 dañoo bëgg développement ñun tamit loo bëgg def da nga ciy sonn ñun tamit dañoo war a daw

jël jox kenen également c'est bâtir les relations sociales parce que suñu suñu sey mo tëdde noonu foog mu am teranga c'est bâtir les relations sociales c'est renforcer la position de la femme dans dans la sa famille d'adoption lolou dafa am solo de. jërëjëf euh, soxna fat Touré. waaw euh, teraanga baax na waaye nag. mu baax nañ ko moytu di indi euh Mouhamadou Baro euh, Alaaji malik waxna wax bu am solo nana pour ñom parité bi ñuy mané mhm. fi mu bëggoon sentu ñu mané fa sen combat moy moytu yàq bi. bi ci des mooy na na mm. ñoom jigéen ñi seen bopp sax léeg-léeg nga gis bu ñu demee ci élection yi am ku yëkkati loxoom ne dama bëgg ñu wateel ma mais jigéen ñi gëmuñ seen morom jigéen ñi loolu am solo la ah, ah, waaw c'est que moom euh, dama jàpp ne mm. dama man li ma ci gëm mm. mooy du jigéen mooy yàq wala góor société mooy yàq mm-hmm. cest à que même loi bi am nga am na loi wax na sànq ne am na loi bu nekk loi yoo xam dañ koy voté mais duñ ko appliqué loi boobu sur le gaspillage Euh, euh, ci la bokk mooy dañ ko voté mais ba tey kenn mësu ko appliqué léegi nag euh, bu ñu li li tubaab di tuddee stéréotype nañ ko moytu mooy Sénégal dañu bëri ay baat yoo xam ne ak ay mbir dañ koy tëgg ba nga defee ne dëgg la fekk demeewul loolu yàq bi góor ñi man góor ñi may gis ñuy yàq des fois quantité bi ñuy yàq ak millions yi ñuy yàq jigéen di ko yàq hmm. barki démboo Njaay am na fi benn lu amoon fi Grand Théâtre ay góor laa gis ñu génnee ay ay millions di ko di ko génnee di ko séddale. di baatare di ko baatare di ko sànni ci kii des fois ay kilifa des fois ay ay ay nit yu ñu xam yàq société mooy yàq. nañ bàyyi jigéen ñi ñooy def ndàngam góor ñi ñooy def ndàngam société wala jigéen bu ko defee it bay gën ci fës góor ñi dañ cee ànd loolu mooy société bi donc moo ko accepté beneen bi aussi mooy débat bi warul nekk góor contre jigéen wala jigéen contre góor parce que loolu suñ ci demee rek ni ñuy yeddee jigéen ñi léegi. noonu la ñu mën a yeddee aussi góor ñi ma jox la exemple mhm. tey jigéen ñi ñu ngi xeex dóor bi ñu leen di dóor ci kër yi mais diine yi ñoo leen njëkk a xeexal loolu mhm. mais malheureusement ñu ko xam nga yonent bi sallallahu alayhi ci ci ci diine islam référence mooy moom mooy référence wu jullit ñi dañu wax ne musul dóor musul yëkkati bantu bale teg ko ci kaw ab jigéen mhm. loolu bu ko ci góor ñi royoon wala di woote woo jullit kon coow du am mais suñu aada yi ak suñu melokaan ak suñu dundin dem na ba egg foo xam ne amaana dugg nañ ci loolu bu ma jëlee wàllu wàllu liggéey séddoo liggéey ci biir kër loolu li exemple liñ ci mën a jox ci diine dafa bëri mais tey am na lu ci dugg ci ñun loo xam ne def nañu loo loo xam ne tey góor gi dafay am gàcce sax bu nekkee jabaram mu yëkkatil ko benn bale sax jox ko loolu nag mbiru ay aada la yooyu man jàpp naa ne hmm. suñu suñuy suñuy revisiter yenn aada yi yooyu la ñu war a xool man dama bokk ci waxtu mi ngi ñuy bëgg a dab te bëggoon naa nga tontu ci li wax ne ñoom jigéen ñi gëmuñ seen morom yi jigéen ñi ndax bu ci yenn taxawee ne damaa bëgg ñu jox ma réew mi duñ ko woteel waa loolu loolu man dama ci gis aussi dama ci am benn jàngat mooy man dama contre sax c'est vrai que disparité yi am na fu mu egg ñoom euh, maanaam écart bi seeni droit ak droit jigéen ñi xëy na dafa dafa yaatu ba war nañ xeex mais man xam nga lu ma mën mënta nangu jigéen bokk ci daayira wala bokk ci parti politique nga ne ko moom suy xeex waratul xeex intérêt sóoraale intérêt daayira bi wala intérêt parti bi nga xam ne foofu intérêt commun la dafa war a jam am intérêt sexiste mooy intérêt jigéen loolu aussi man d'accord ma ko parce que mënoo ne mënoo ne jigéen bi dafa nekk LDMPT wala dafa nekk APR suñu koy su ko su beneen jigéen nekkee PDS suñuy suñuy jooyal juyoo ci wàllu xalaat kii dafa war a xoolee jigéen waa ji femme bi comme jigéen rek mais waru ko xool comme ku am ay intérêt yoo xam ne day jur day jur boo dee konte ci xeet non man loolu d'accord ma ci pour man pour man jigéen bu nekkee ci groupe wala gëm idéologie li ko war a njëkk a yitteel du ne li mu nekk jigéen la ko war a ji la war a jiital mais idéologie bi mu gëm ak xalaat bi mu gëm tey jërëjëf Baro waxtu yi dab nañu daanaka Fatou Touré célébré ngeen journée bi ba pare ndax amna résultat yu ngeen mën lamb daj ko wala amut ko. waaw sànq maa ngi lay wax ne la euh, journée 8 mars. Hmm. journée de célébration la journée de commémoration la journée de revendication la waaye journée de bilan la. Hmm. Euh, kuréelu jigen ñoo gis ñu dajaloo rek dinañ ne ñun de daaw ak ren lañ fi am. kuréel bo gis dinañ ne añu ah, ñu de daaw ak ren nañu li te amuñu ko mais am ay avancées sur le plan mondial am ay avancées parce que ODD yi comme nim ko waxee buñ ko jëlé ci niñ ko wara a ci suñu dëkk avancé la parce que cadre la déjà opportunité la lay ubbil ndax dafay def appel de fonds day def appel de de de de qui de mentalité day def appel de tout opportunité la pour pour jigen mën avancer. waxna la tamit tamit fi ne la CDAO jëloon nañ fi ben jëloon nañ fi ben loi bo xamné biñ ko liraté dañoo gis né dugalul affaire jigen égalité homme et femme réseau civil jigen ak ay coalition and nañu xex ko ba am lolu ak yeneen yoo xam dañ koy dans d'autres domaines parce que boo ko jëlee dans le domaine des droits comme ça rek pur et dur doo gis dans le domaine de la santé au Sénégal nee naa euh, pour pour tout neuf madame le ministre yokk na ci budget ren 300 millions pour jënd rek ay produits contraceptifs jox ko jigéen ñi loolu ay avancé la. nee également dans le domaine euh, de la santé toujours Il nañu cadre boo ne dañ dafa un cadre euh, am cadre de financement bu nekk ci ñu cop ñu capté ay financement yu bëri yoo xam ne efficace la pour lutter contre la mortalité maternelle te loolu te loolu kuréelu jigéen ñi bokk nañ ci ñu ko xeex ak yeneen domaine ak yeneen domaine ak yeneen domaine am ngeen résultat yoo xam ne waaw am na ci lu ñu jàpp mais gis nga xeex du luy sotti tey du luy sotti suba c'est une dynamique da ngay da ngay da ngay am lii jàpp ci dawaat suba nga am lii jàpp ci dawaat ginnaaw suba nga am lii ndax àdduna moo ni tëddee xeex xeex ak ku doole baaxu ci de. ah kan moo ñu ëpp doole ñu. ñun da ñoo ragal. <laughs> dañ ñoo ragal ñun xeexuñoo ñoom de ñun sous développement la ñuy xeexal hmm. ak yenn mécanisme yi nga xam ne baaxul pour développement ak yenn affaire yi nga xam ne foog ñu samp ko pour développement mun a mën a judd parce que fi mu ne ñun yàlla bu ñu xeex suñu jëkkër yi ak suñu càmm ñi xeexuñoo góor ñi ñun li ñu bëgg mooy rek

suñu aduna bi mëna développer commencer ko par suñu jëkk euh, euh, dëkk yi donc dila sargal yow tamit ndax bi moy ñettel wala ñentelu journée de la femme bo xamné da nga naan ana facturé na ñëw ñu and liggéey da ngay wo également réseau Siggil Jigéen di liggéey ak mom ñu ngi la ci sant dila sargal di sargal sama càmmiñ bi tey laa ko xam mais xalaatam rafet na te naa ko yóbbu réseau Siggil Jigéen ñu bokk ak moom suñu ay recherche dama day bokk am nañu ay góor de non day bokk am nañu ay ay góor day bokk day nekk benn <laughs> kii jërëjëf soxna Fatou xaritu réseau kon ngay tàggatoo <laughs> man de li may tàggatoo rek mooy euh, benn question bokk na ci résultat yi mu wax hmm. bu sensible boo xam ne war nañ ko moytu ñoom muy mbiru avortement bi médicalisé bi war nañ ko moytu niñ ko war a moytoo mooy nañ fexe ba buñ koy régler ñu régler problème bi ñu bëgg saafara mais mu bañ a ubbi yeneen bunt yoo xam ne li ci euh, këru diine yeeg ñëpp di ragal parce que loolu rek su amee nit ñi rassuré wu bu dee jigoon bu ñu tooñ la wala def la naka su dul noonu ñu war la mën a jël en charge nañ fexe ba buñ koy régler mu bañ a nekk ubbite bunt pour ñeneen loolu loolu rek la kilifa diine yi di bañ leneen li nag mooy je crois que qui lu am solo la mhm. effectivement Raphaël luna aussi mom khalatam ak euh, niveau aussi bi et té jigen ni sen sen valorisation ak à taxaway su su du du rek amal résultat société bi lay amal résultat donc loolu lañ ci wara a liggéey liñ ci wara moytu ko limuy wax légui sank nañ ay financement nañ ko gënal mhm. parce que légui mbiru yu ONG yi occidentaux occidentale yi dañ koy dugal boole ci xaalis bu bëri te ku ne xam ne xaalis ci li gën a neex ci àdduna bi ci la bokk. Mhm. résister ko ak delloo ko yombul te suñu ONG yenn ñi ñu ngi koy nangu buñ ko nangoo nag ñu jox leen agenda agenda boobu ñu bëgg ñu ko imposer te loolu société bi munu ko nangoo. donc loolu rek laay wax di leen gërëm di leen sant wa salaam. jërëjëf euh, Mouhamadou Baro kon ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla tawfiix euh, di la wax nag fexeel ba bu la facturé <laughs> Eh, di gërëm it soxna Fatou sympathisant lay doon di ko ñaanu yàlla tawfiix ak mboolem mm. waa Resso Siggil Jigéen ah, eh, wax dëgg yàlla am ay nit lañ yoo xam ne saa yoo leen wooyee pour ñu toog waxtaan danañ ñëw damay faral di wax ne réew mi ñun ñoo bokk te mënuñ ko séddoo comme mënuñ ko séddoo nag man sama xalaat man nga ca bañ a d'accord man naa bañ a d'accord ci xalaatam mais faw ñu toog waxtaan ko mais mënoo toog ci sa si koñ di wax may wax te duñ waxtaan lool day jur la leen mm. mais suñ toogee waxtaan nag mën na jur résultat kon ñi ngi fàttali ñi nga xam ne ñi ngi àndoon ak ñun di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew ci ay jigéen a ki góor ñëpp di gërëm waa régie bi di gërëm suñu maa yi di gërëm réalisateur bi di gërëm suñu prono de son liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaamu yàlla yi mën ko seetaan ñu ngi ñaan yàlla boole ñu yow yi bi ñu ngi leen di jox randi dox daje ajjuma bi di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب فتح ما باسم فتح نبي لن أق بل أق نجي جتل كادو خليف جنرال دي تيجان شي أحمد تيجان سي المكتوم اللي بغنك بيون نك rassemblement ci taalibe yi ñu daje ko Tiwaawan déglu kàddoom li mu leen war a digal ci diine digal leen ko ci tariqa Sayid Cheikh Ahmed Tijani di ziar boo xam ne nag du màggat du dellu gannaaw ñu bëgg waxtu bu nekk rek nekk bu exemplaire ba xam ni ñiy roy daañ ci mën a roy ziar ndax ziar nag ku koy wax yaa ngi ko jànge tiwaawal ñu bëgg nag taalib bi yëpp ñëw góor ak jigéen ndaw ak mag koo xam ni amoo ngant bu wér daal ba beneen dimanche bii di ñëw di fukki fan ci mois d' avril ñu daje ko Tiwaawan ndax yoon woo ñëwee am nga yiw ak barke ndax dama dégg ci Serigne Cheikh Ahmed Tijani mu ni dafa amoon benn waay bu ñëwoon ci Serigne Babacar si am lu mu ko ñaanloo ni ko moom la bëgg daal waaye Serigne Babacar Sy tontuwul ba mu demee nag ñu taalibi bii de li mu ñaanlu yàlla bu mu ci jot ñu ko ah kii di taalibe am mu bëgg ñëw wax ko ngeen yàlla bu ci jot mu ni dama xam ni su ci jotee dootul dem ca kanamu Seydil Hadji Malick jonkan fa ñaan soxlaam dootul demit ci xadra wasifa toog fa dootul limaale boppam it ci ñi ci daayira yi di am passif di dem Tiwaawan moo tax man yàlla bu mu ci jot kon mu nekk benn ziar boo xam ni ñu ngi ci woo képp kuy taalibe même ak ku dul taalibe sax rawatina ndaw yi ndax jamono léegi ndaw yi ñoo ko moom yàlla moo leen ko jox mu ngi ci wàllu diine ji ñoo ko moom mu ngi ci wàllu tariqa yi ñoo ko moom te ngeen xam ni ñu ngi ci jamono boo xam ni ñu ko nit ñi waxe rek ku jonkon te wéeruwoo ci dara ku la bu max nga daanu jamono la boo xam ni ku amul kilifa jinne di sa kilifa te jinne nag ku muy sa kilifa léegi ñu tàcc la ca mbedd ma nga fecc ndax condition yi nit di dajale ci boppam ba bu tàllee loxoom yàlla teg ci am na ci ñu ko yàlla may te Seydi Hadji Malick ca la bokk di leen ñaanal yàlla yenn yàlla defal leen condition yu ngeen mën a ñëwee ba bu ngeen ñëwee fekk fi kilifa yi ñu jotal leen itam li nga xam ne moom lañ leen war a jotal ngeen ñëw ci jàmm dellu si ci jàmm te ziar la boo xam ni kenn ku nekk ci ñoom ba mu jotee ci yow ñu li ko defal lu bàyyi woon xel la ziar boo xam ne laaj ñu leen piki au contraire dañ ko am di leen ko jox li ñu laaj rek ngeen indi ñu seen pas-pas فاسفاس يوين جندمتا سيان باربي ستدير وقات كوفا بامو ديال فوم نكون ودفا نكون جن باي خلول وباخ باخ نجي نجي نيب دي زيار نيب دي بلاق نيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آلي وداكي يراك النور أسنى يا لنا dégg naa la jab yan yal na yàlla yokk leeram benn gàmmu tey ba mu ne diine bi tey doomi sëriñ si ñoo ko yàq ndax seen waajur yi dañuy jox seen bopp lislaam jox dee ci lislaam dund ci ba dee ci Cheikh Ibrahim bi ma wax aussi ne moom la àddina bi yëpp di wër waxuma bi juddoo tey ba nek doomi alhaji Hadj Abdoulaye ak doomi asu yank déedéet ndax bay mo ne walaw sawaruni fi alhaqiqati lam yaro on y sera. Le Nigeria, on passera. Venez nombreux nous pousser à la victoire vendredi au stade d'Embodiop à 17h. Impossible n'est pas sénégalais. Merci à la DTV qui nous accompagne et vous offre ce match en direct et en exclusivité. Sénégal, Nigeria, dames, vendredi 7 avril à 17h au stade d'Embo Le Sénégal, qui accueille deux présumés djihadistes libyens sur demande des États-Unis, quels commentaires faut-il en faire Comment comprendre l'absence de l'opposition aux festivités de la fête de l'indépendance Panama Papers, un proche de Karim Wad et un ami du régime cité dans cette affaire, que faut-il en déduire Ces différents sujets seront au menu du débat de la rédaction sur la DTV. and blessings from above descend ceaselessly on Medina. People feel the joy, people feel the love in the city of Rasulullah. A perfect path he laid for everyone. He lived and died for us, what have I done? I have forsaken his life, I have abandoned his way. Oh Allah, now my time has come. Deep in, deep in my heart I feel a change has begun Deep deep in my soul I feel the warmth